salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi ñuy seetaan fii ci Senbuzz ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen wàccee seen wàcc waa tey nag ñu dalalaat fii suñu sëriñ suñu kilifa muy eh, Cheikh Moustapha Badiane borom Kazu eh, laataa ñuy xuus ak moom ci waxtaan wi rek dañ koy bàyyi mu nuyoog mbokk internet yi koy seetaan fii ci Senbuzz. aouzu billahi min acheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. يا أمة الشيق احضر لنا في هذا المحضر والتعطف بنظرة تأتي لنا بزهر بوكي جلدي بوكي أدنى بيك نيني ستان يب نيني نيب دي زيارة نيب بسم الله waaw du dara sant yàlla rek nekkoon ci gëj fi rek waaw mais du nekkoon ci suñu yitte bopp rek ak yitte àdduna wante ñàkk gi ñàkk ñëw ci média bi di wax yëpp ñu ngi wax ak nit ñi ci ci ci lu ñu xam ci lu dul média te itam euh, yaakaar naa ñun ñu ngi siy jëriñu ñañi wax ak itam ñoom it ñu ngi siy jëriñu loolu rek mooy moo indi gëj a gëj a jénn bi mais loolu du dara. adduna moom yàlla moo ñu bind euh, indi ñu fi. Euh, am lu ñu tëralal lu ñu sant pour ñu di ko def bi ñu fi indee itam indu binduñu rek indi ñu fi waaye dafa bind téere bàyyil ñu fi téere boobu di wax ni ñuy dundee di wax fi ñuy jaar di wax euh, fi nga xam ne bu ñu fi jaaree dañuy am jàmm ak bu ñu bàyyee téere boobu itam li ñu ci fekk loolu yëpp téere bi wax nañu ko wax nañu lu pees passé ci gannaaw ci ay histoire ñu nekkoon ci ay ndigal résultat yañ ci am ak ña wàccoon digal euh, résultat yéen ca jëlee loolu yëpp téere bi wax nañu ko li présent nii ñu toog it ci ñu nekk ci téere bi wax nañu luy xew yëpp lay ñëwit wax nañu ko kooku alxuraan rek la kon yaakaar naa euh, euh, problème yi li ko indi yëpp mooy ñàkkaat dellu ci alxuraan rek doomte nag dëgg-dëgg li xew noonu foofu maîtriser wu ma ko dëgg-dëgg xaw ko xaw ma histoire bi nu mu të nu mu tuddee waaw Ukraine maanaam la xew ci histoire yooyu ba indi guerre beeg indi xeex beeg yooyu yëpp maîtriser wu ma ko waaye xam naa ne daal li ñuy yàlla sant suñ ko doon def jàmmu la ñuy am ndax lislaam mooy diine ji nga xam ne mooy diinay jàmmu mooy diina joo xam ne euh, indiwul benn fitna indiwul benn problème li ñu ci yàlla sant yëpp su ñun lay dellu si waaye lim ñu ci tere yëpp tam ñun ñoo koy jëriñoo waaye wàññiwul yàlla dara kon daal fitna yi am ci àdduna bi yëpp yaakaar naa dëddu gi ñu dëddu alquran la rek ak dëddu yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa wante saa yu ñu delloowaatee ci alquran dellu ci njàngaleem yonentu bi saa alayhi wa topp yoonam rek jàmm yàlla danañu ko delloo incha allahu taala. xam nga yow yaa ko wax léegi ñaan yàlla ñaan ñaan la tudd yaakaar naa euh, baat bi buñ ko buñ nit ñi dañ koy wax mais bàyyiwuñ ko xel su fekkoon ne bàyyi neen xel bu baax a baax a baax baat bi. yaakaar naa njuumte yi ci am yëpp du ci am parce que ñaan ñaan ñaan nga wax ñaan yow soo yoroon loo xamante ni da koy maye ma di la ko ñaan yaakaar naa ne su ma lay ñaan danaa comporto comportement boo xam ne comportement wu kuy ñaan la pour nga man maa may wante bu fekkee ne man mii ñaan dama bëgg a taxaw taxawaay <laughs> yow mii maye dëgg yaakaar naa ñaan gi du nangu kon ñaan leen ko tuddee ñaan nag suñ ko tuddee ñaan dangay nekk jaamu yàlla yàlla nekk yàlla lépp lu war ci yàlla ci ay sifaat ak ci ay melokaan nga jox ko yàlla yow say sifaatu jaam nga jël ko say sifaatu jaam mooy amuloo dégg nga ku torox nga dégg nga ku amul dara nga ku ku ku lompañ nga ku faible nga yooyu yëpp moo dajee ci yow yàlla moo am moo am kattan moo am doole moo mën a joxe nga taxaw ci kanamam nag yow mi nga xam ne danga ngaa amuloo dara da ngaa feebal amoo xam-xam amoo mën-mën amoo pexe nga ñaanee yàlla ci xaal boobu yàlla dana la may mais boo bëgg a taxaw taxawaayu jël melokaanu yàlla yi taxawee ko mais yow sa melokaan ku koy représenté da nga bëgg a jël melokaanu sa melokaan jox ko yàlla da nga jël melokaanu yàlla jël ko kon ñaan ak ki ñuy ñaan amatu fa kon ñaan ak ki ñuy ñaan pour mu am il faut rek nga yor melokaanu jaam yalla ay melom nga baye ko ko après bo ñaanee yalla rek yalla dina ko def yakarna naa suñ defee loolu suñ defoon loolu suñ rek yalla dana ñu defal ñaan nak ñet yonentu sallallahu alayhi wasallam neena yalla dana ko nango ci ñetti anam da nga ñaan yalla yalla defal la li nga bëgg comme ni nga ko ñaanee ci saa si nangula da nga ñaan yalla itam am lu la narona dal yalla fankale lako ci lolu nangule la ñaan gi ci lolu lele nga ñaan yalla itam yalla ne sama jambi kat mu ngi may ñaan wante li may ñaan ci yomal xiyaam bii la ko gën a soxla dama ko koy dencal ba mu ñëw ma jox ko moo tax bu ñu demee yomal xiyaam da nga gis yenn jaam yoo xam ne yàlla dana jël ay may yu bëri ne la kaay nga ñëw mu ne la lii yaa ko moom nga ne ko yàlla fu ma ko jëlee nga ne koy yàlla ne la yaa ma ko ñaanoon bi nga nekkee woon àdduna mais damaa xam ne fi nga ko gën soxla ma jox la ko kon yàlla du delloo benn ñaan lu mu wax ci aaya ji loolu loolu du dëñ mukk dégg nga ad'uuni astajib lakum kooku du deñ ndax inna allah laa yuxliful mi'aad yàlla du fausser rendez-vous nit mooy wax di di dindi waxam waaye yàlla du wax mukk di ko dindi kon loolu mooy ñaan yàlla loolu firi na boppam comme li nga wax rek su fekkee ne danga nga bëgg a jël melokaanu yàlla comme ni ma ko waxee li ciy xew rek moo ci xew njuumte bi yàlla lépp lum la sant ci àdduna yàlla dafa bëgg doomu aadama dafa bind doomu aadama ormaal ko jox ko personnalité mooy benn saxsiya boo xam ne tëralal ko yoon woo xam ne su jaaree ci yoon woowu personnalité boobu doomu aadama du ko manqué mukk boo gisee yàlla di ñu tere yenn yi maanaam ci wàllum ñaan exemple di wax loo xam ne ci xaybu la lu ñëwagul yàlla tere ñu ko daf ñu bëgg def nit yu am personnalité daf ñu bëgg a am def nit yoo xam ne ku ñu gis bëgguñu ku ñu gis naw ñu loolu la yàlla bëgg ci nit ñi mais bu fekkee ne loolu da ko tegg yaa ngi bëgg a loo sa bopp parce que bu fekkee ne da nga ne dara day xew <laughs> loolu mais yàlla wan na la ko mais tere na la nga wax ko mais boo ko waxee nag yàlla soppi mbir mi moo yaa toroxal sa bopp mais yàlla toroxalu la parce que yàlla lim nee la lépp lu mu aaye nit dégg nga moom jëriñu ko dara wàññinu ko dara wante kim ko aaye lay jëriñ kim ko aaye lay wàññi dara wala mu jëriñ ko dara kon su fekkee ne dañoo bëgg nekk nit nit ñu am personnalité li yàlla tëral ci charia li yàlla tëral ci alquran dañ koy def suñ ko defut nit nga koo xamante ni yaa weer sa bopp yaa xawi sa sutura bopp parce que yàlla aaye na la ko nga def ko yàlla nee na bu leen wax ci xay bu nga wax ci xaybu doomte yàlla wan na la xaybu nee na bul ci wax waaw nit mu ngi mel ni nit ku woo la ba nga ñëw mu wan la nii ne la bu ci wax ko am doole nga turne wax ci la la ca fekk yow yaa ko ci def sa bopp kon euh, ñàkk ñàkk aw ci yoonu alquran ak ñàkk aw ci li yàlla tëral moom moo indi gàcce yi nga xamante yàlla nga koy feeñal ci yi nga xam ne dañuy wax luñ xamul euh, kuy ñaan yàlla euh, dafa am yenn comportement yoo war a mel nekkul ne da ngay ñaan yàlla da ngay sol ngandum maam yére dangay ngay da ngay da nekk nit koo xam ne ku la gis ci sa zaahir daf lay ñee soog la mën a ñaanloo yàlla déedéet du ay sifaat du melo yooyu la ñuy xool ci nit di ko ñaanloo yàlla du melo yooyu itam ngay mel pour ñaan yàlla yàlla déglu la parce yàlla ci ja xool jaam bi amul dara doo loo xam ne mën na ko wan yàlla lu jëriñ yàlla dara dara loo xamante ne rek jaam bi war na ko mën a wan yàlla ba yàlla am complexe am du yére du alal du lu mën a do yàllaa la ko jox kon ñaan bi gën a gaaw ak ki ñu war a ñaanloo mooy koo xam ne day nekk jaamu yàlla aw ci li yàlla bëgg lépp lum tere mu bàyyi ko yàlla nee na lépp lu nit tere nit mën na ko bàyyi wante lim digle yep nak ken munu ko def parce que lim digle mo bari mais lim ter yep nak man nen ko bay waaw di lek lu lew di wax deug parce que kep ko xamanteni li ngay wax du deug manam sa yo waxe rek da ngay fen koku so ñaanee yalla yalla du ko nangu so fekke ko xamanteni tam tam wulo di lek lo xamne lewut de nga so ñaanee yalla yalla du ko nangu ko xamanteni tam tam euh, da ngay jema naxate de nga di wane lo xamne nekul ci yow ko kit bo ñaané yalla yalla du ko nangu man nga def pexé nak ba am xaliss man nga def pexé de nga ba réussir ci benn mbir bu ndaw mais ñaan yalla pour yalla nangu ko kooku mom du mekk yalla nak da nay danay yalla da nay jëyee parce que ñi def xërëm de nga di wax neex yalla naqadi yalla koku yalla daf lay jëy wa tudul nangu yalla tudul ñaan gu nangu yàlla daf lay jëy da fay daf lay wutal preuve pour yomal qiyam so ñëwé comme aaya woon na la ko nga def ko dema dem dem ba yokk ci ne neex yàlla mu am naqadi yàlla mu am mais loolu ku am xel sax war ngaa xam ne loolu mënul nekk mais yàlla yàlla moo la ñuy bàyyi ci xaal boobu pour lan parce que yërmande yàlla daf leen sori ndax bu la yërmande yàlla soree wax jooju doo ko wax sax waxuma la nga di ko jëf ndax fii kenn mënu fee jëf loo xamante ni lu yàlla àndul la mu am wante nag loolu tekkiwul ne ñaan gu yàlla nangu la mais yàlla moo leen bàyyi di leen ndégandiku bàyyi leen ba yomal xiyaam mu wutal leen preuve ne leen li ma leen aaye woon def ngeen ko lii ak lii ngeen ko defee pour mu man leen coller motif boo xam ne dana leen mën a dugal safara yàlla nañ ci yàlla musal. man ni may ñaanee yàlla mooy euh, euh, ci ni yàlla wax yàlla moo ne adduuni astajib lakum waxaan na ne fa lillahi al asmaul xusna yàlla nee na tur yi sell yi rafet yi man maa ko moom ñaane leen ma ci tur yooyu noonu tur yoy bo demee ci alquran dégg nga yalla indi nako ci muy juroom ñeen fukki tur ak juroom ñent ben bi nëbbu bi yalla nga ko nëbbu ci bir alquran mu ñew mu téméral ko yalla tur yoy lay wax né man mako mom tur yi bo ci lar rek tur rafet la nek tur yoy itam bo ci lar rek nak soxla ak doomu adama tur yoy boko commencé ci première ba ba ci dernière ba amul ben soxla jaamu yalla bu mbaay ci tur yoy deng yalla nak neena so may ñaan ñaané mo ju tour yu rafet nonu tekki wul ne man nga ñaané yalla benen façon bo xamanteni yalla man na la ci jox wante dana la ci jox ba pare jéppi la te bo dee mu dugal la safara yalla mo ne neen ko ñaané ci alcorane neen ko ñaané ci turam yi rafet yi man ci tur yoy lay ñaané yalla mu nekk yoon wo xamne nak wa yoon yalla may na ma ci xam-xam comme nim ko maye ñeneen ñi parce que yalla moy séddale am lu ma ci denk ci ay tur yalla deng lo xamne ne mën naa ci liggéey loo xam ne mën naa jëriñ nit mën naa faj soxla nit ci zaahir mën naa faj soxla nit ci baatin man noonu laay liggéey yàlla leneen lu dul alquran laaluma ko te jàpp naa ne leneen lu dul alquran amul doole dégg nga comme ni ko nit ñi gëmee jamono bi boo fa boo boo booy liggéeyal nit sax boo ne ko man liggéey ah, liggéeyuma alquran man leneen laay liggéey sax pour moom dégg nga yaa am doole bi loolu am na sax ñuy wax ne alquran léegi amatul doole doole bi dafa wàññeeku wante yooyu yëpp euh, faiblesse imaanu nit ñi la ak ak ak communication sëriñ si dem ba dugal ko seen bopp yi ak ñi nga xam ne dañoo dañoo am xam-xam war a jënn wax ak nit ñi te duñ wax bu ñu waxee ñu ne waaw parce que léegi internet bi sëriñ su si nekk mais yow mi nga xam ne da am xam-xam yor turu yàlla mën a gindi jaam ñi toog su ruq dégg nga war a wax ak nit ñi wax leen luy alxuraan tegtal leen ci faale woo leen waxoo ak ñoom ba pare ne ñiy wax ci internet bi yëpp nangam nii leen mel boobaa lu yàq yow la olof nee na ku mën dégg nga te defoo lu yàqu yow la waaye ku man te bàyyiwu itam li yàqu yow la kon man dama jàpp ne ñi nga xam ne dañoo am xam-xam nekk ci ruq war a jënn expliquer nit ñi ci ñaan comme niñ convaincre nit ñi ba yóbbu leen gëmloo na leen ne leen lépp loo xam ne alxuraan la léegi amatul doole léegi leneen ay sunguf yu kenn xamul moom moo am doole loolu ñi xam alxuraan xam tur yàlla mën a ñaan te muy nangu te ñi nekk ci réew mi xam ko ñooñu war nañoo jénn expliquer nit ñi lu leer nañ ndax rek internet bi lu baax ci lu bon ci boo ciy wax lu baax lu baax la mais boo ci wax lu bon lu bon la loolu moo tax ma jàpp ne dégg nga ñàkk communication ak ñàkk wax ak nit ñi ak ñàkk leen delloo ci yàlla loolu moo indi gëm-gëm bi nit ñi ñëpp gëm dem ba dem ba yaakaar ne lépp luy nit ci al lépp luy nit di liggéey ci alquran amatul doole mais lu ñuy liggéeyee leneen moo am doole loolu ñàkk wax ak nit ñi moom moo ko indi man ci alquran laay ñaan te dara duma ci dindi te itam ku am leneen loo xamante ni yaa ngi koy jéem a tëkkërleeg alquran yaakaar naa suñu dajee da nga xam ne li nga am baaxul da nga xam ne li nga am du dara alquran dafa ne wa kullu xisbin bi ma ladayhim farixuun kuréel bu nekk ak la ñuy bëggee kuréel bu nekk ak ca lañ ne ku nekk ak kuréel ba nga ne man ci làngum politique newuma ci man politique wu ma tekkiwul nag am na yu ma ciy xam am na yu ma ciy dégg mais man concentré wu ma ci politique parce que man am na leneen loo xamante ni jàpp naa ne loolu mooy sama rôle walis ma dem di politique waxuma nag politique baaxut parce que ñi ne ci politique dañ maa wuutu ci politique li ma ne ma ne ci man ta moo wutu leen ci loolu loolu mooy àdduna kenn ku nekk ak kuréel ba nga nee nga doxal ko suñ ko defee rek yàlla dana doxal àdduna bi président de la république sax boo ko falee ñun dañ koo fal en tant que président mu jiite lépp wante nag poste yëpp mënu ko mënu koo occuper day def ministre euh, euh, l' éducation ministre de la santé ministre nangam ministre nangam lu ne mu am kum ko jox parce que moom doomi aadama la mënta occuper lépp waaw ñun maqaama boobu leen taxawee li nga wax nag ci homosexualité sama sama sama sama sama xalaat ci loolu mooy ànd ceeg li ci ñëpp ànd mooy mbir la moo xamante ni euh, dañ ko war a xeex ba mu jógee ci àdduna bi dégg nga dañ ko war a xeex ba mu jënn ci àdduna bi parce que nekkul loo xam ne lu baax la dégg nga mooy loo xam ne lu munul nekk homosexualité mooy lu munul nekk xam nga tey boo bëgg a jël yow mi nga xamante ni yow yaa yaay liggéey men ci wàllu électronique yi wàllu àdduna rek soo bëggoon a jël tey courant nga jël pilis courant pilis nga jël beneen pilis bu ko boole xam nga mun ta nekk boo ko bëgg a def rek da taal sa kër dégg nga boo demoon pilis ca Senelec ba ca centrale ba nga jël pilis foofu noonu jëlaat beneen pilis nga boole ko yaakaar naa kër yu bari dana làkk noonu la mel ci yàlla moo ne góor ak jigéen ñoom ñooy composé doom juddu loolu la yàlla daganal yow nga ne déedéet damay def lu munul nekk lu xel mënta nangu mooy lan damay boole góor ak góor nga xam benn résultat amu ci benn bànneex amu ci damay wax ne bàyyi ma sax du xar du bëy du nag du gëlëm du gaynde amul benn bàyyi ma rek buy topp benn bàyyi maam bu góor ne day sëy ak moom amul du xar du bëy du nag wante nag loolu lu muy tegtale mooy yàlla waxoon na ne nit dana yegg ci mbon ba gën a bon sax bàyyi ma yi balhum balhum adal amna ci ño xamne xam ne bàyyi ma ñoo bon sax bayima parce que yàlla bu la wacce les responsabilités bo xamne wacce wu ko ci osman wacce wu ko ci souf wàcce ko ci dot inna aradna al amanata ala as samawati wal ard wal jibala fa abayna an yahmilnaha wa ashfa'na minha wa hamala al insan innahu kana zaluman jahulan al qur'an ko neena dama jël sama amana bi sama kóolute gi deng sama confiance bi ma dénk ko osman osman gàntal ni munu ko yor ma dénk ko souf munu ko yor ma dénk ko doj mënu ko yor nee na ma gàn ma ma yan ko doomi aadama bi wante nag ku mën a tooñ la ku réer la kon loolu moo ñu dar rek parce que responsabilité bi la yàlla dox nga jël ko ba pare mu ne ci yow nga yàlla teral la nga gën lépp lu yàlla bind nga ëlbati ko gën a yées lépp lu yàlla bind kooku yàlla nañ ci yàlla musal te góor jigéen lu ko gën a yées ci xalaat maanaam góor jigéen lépp lay yàq day yàq économie day yàq jukko day loo xelaat rek góor jigéen mën na ko yàq kon loolu dama jàpp ne lu ñu war a xeex la ci xam-xam nag xeex ko ci ci ci ci ci ci stratégie xeex ko ci ci ci xelaat boo xamante ni ba mu réussir nu ñu mën a def ba mu réussir rek ci pexe rek nit ñi mën nañ ko def ba jëlee fi loolu ne yaa ngi la ñuy dooleel yàlla yàlla yàlla na la yàlla nasaxal mais képp koo xam ne itam yaa ngi am doole pour jëlee leen fi yàlla na yàlla yokk sa doole man loolu mooy sama xalaat ci mbiru góor jigéen nit mënul ñàkk noon nit laa budda yàlla bindal ko mu am ay noon ku la gën a baax nag moo la ëppi noonu euh, nit moo ma def nangam gis nga nit ñeent noon la am na ko nit ñëpp jàpp nga gëm ko nga bañ ko gëm ñeenti noon yi moo ànd ak képp kuy dox mooy àdduna ak bakkan ak bànneexu bakkan ak seytaane léeg-léeg nit jàpp ne moom dafa am noon fekk bakkanam gim topp ak bànneexu bakkanam gim topp moo ko jural ay noonam léeg-léeg seytaane moo koy mooy noonam nag kooku la ñu yàlla wax sax nag jàppul leen ko muy noon waaw jàppul leen ko muy noon mooy mooy seytaan kon ñeenti noon yi moo am ñeenti noon yi nag kenn mënu koo teqale kenn wante nag man ngaa fexe ba duñ mën ci yow dara bi ci njëkk mooy fexe ba li yàlla ne ñu ne ca gis nga nit ñi bu ñuy nax doomi aadama yi nañ la ñuy wax rek lu xew bëgg xaalis sëriñ bu bëgg xaalis taxul nga communiquer communication boo xam ne da nga yee nit ñi nit ñi am xel dégg man gëwuma da nga bëgg xaalis rek bëgg di wax loo xamante rek pour luy dugal sa poos loolu luy dugal sa poos bi nga amee ñeenti weer ci sa biiru yaay la ko yàlla préparé ci yow kañ ngay dee kañ ngay kañ ngay juddu dégg ban wërsëg nga fi am boo paree lan ngay liggéey jullit nga wala yéeféer nga loolu bi nga amee ñeenti weer ci sa biiru yaay la ko yàlla programmé ci yow te dara mënu koo dindi man yaakaar naa ne su jullit ñi gëmoon loolu kenn du fen soo demee bay fen sax boo xalaatee loolu rek danga bàyyi fen parce que boo demee bay fen ci loo war a jot soo xalaatee ne yàllaa la wërsëgal te loolu bi ngay am ñeenti weer ci sa biiru yaay la ko yàlla def ci yow wallaay danga bàyyi fen doo fen soo nar def naka su dul noonu lu mu mën a do rek soo xalaatee ne lii may def lii a tax ma di ko def te lii ma tax di ko def yàlla préparé na ko ci man te boobu ñeenti weer laa am sama biiru yaay te du dëñ yaakaar naa loolu nga bëgg a def ci ñaawteef da nga ko bàyyi maanaam bëgg dara du tax ngay ustaas ngay ku mën a doon nga wax nit ñi dëgg nga wax nit ñi li xew nga yee nit ñi ubbi nit ñi seen xel ñi tegu ci siraatal mustaqim du tee yàlla lim la dencal ci wërsëg laa budda da nga da nga da nga da nga ko am kon bëgg liggéeyal nit du tax nga naan ko dama lay rayal sa noon dama lay nangam dootoo amati noon ak ku dul am noonu amul mais fexeel ba sa noon bu mu mën ci yow dara te loolu ci yow la déparé sa noon bu mu mën ci yow dara bu la sëriñ bi defalee lim lay defal ba pare nga ëlbatiku di wutal say bopp noonu lu lu yëngu ngeen ne ku xees ki la lu yëngu ngeen ne ku ñuul ki la ku njool ki la sama jigéen bi la sama jabar ji la ñaaw njortu mooy li ma la wax ci gannaaw rek yàlla lépp lum ñu tere rek pour ñun la maytu pour moom ñaaw njortu yàlla daf ñu ko tere bu bu yàgg inna baada zanni ismun dégg nga man benn góor sax dafay wax ne ñaaw njortu ci lenn rek la baax mooy ci kuy dawal oto booy dawal oto daal war ngaa ñaaw njortu parce que boo demee ba accéléré oto bi muy 100 mi ne ñaawal njortu ne eh mbaa mbaa wiis bi du buddeeku pono bi ba da nga teggi sa tànk ah badum, du ba du ma dox bam yag xar traversé sama da nga tegg sa tank neena ñaaw njortu mom ci dawal auto rek la la la parce que boo def di nga ñaaw njortu ne lu mënta xew ba duma musiba duma ci fekk ma bayiko kon nit warul ñaaw njortu lolo ta alquran ne lenn ci ñaaw njort yi la du yep nak waye amna yenn ñaaw njort yo xamne ne def daf lay indil problème fay jaxase sa dund ci bir aduna bi kon yaakaar waaw ñaaw njortu moy nek ci kër gi rek lula dar rek lu la dal rek nga foog ni nit la ko teg te yonentu saa salaam nee na nit lu ko dal na dem tuubal yàlla bàkkaaram ak ko def lu tax nanguwoo ne man bàkkaar bii moo tax lii am même bu nit ñëw saagaa ndey tooñ la sax bul jàpp ne kooku moo ñëw tooñ la jàppal ne lu tax yàlla yebal ko mu ñëw saaga ma ndey sàcc sama alal ju tooñ ma jaay ma doole am na lu ma def yàlla lu ko naqadi mu boole ma ak diw mu indil ma ko demul tuubali loolu yàlla yàlla dindi loolu xamoo nde tuub ah, maanaam nit day tooñ te du ko xam mën nga romb benn jaamu yàlla sax dégg nga nga def ci moom bàkkaar tooñ ko te yógoo ko mais demal tuubali yàlla ci boolem bàkkaar boo ma sa def nga dem tuubali ko yàlla ne yàlla maa ngi lay tuubal te bariwul nag tappale rek moo fi ne mais bariwul nit di def bàkkaar te xamul ne def na ko nit xam na boppam nit mooy jéem a nax boppam mais moom xam na boppam lim def ak lim defut moom rek moo ko xam soo defee bàkkaar xam nga soo deful bàkkaar xam nga soo jubee xam nga soo dëngee xam na lu ñu ñoo fi nekk di rek waaye ku ne xam nga sa bopp ahankañ yàlla moo ne yàlla moo ne <laughs> xam nga nit ñi ñoo fiy def lu ñooy def ñooy dindi yàlla nee na duma leen soppi lu may yéen yéenay soppeeku ma soppi leen da wax ji yàlla ñun ñooy soppeeku di mel melokaan boo xamante ni yàlla bugg ko yàlla moom it soppi wante doo soppi mukk yàlla du soppi mukk fekk soppeekoo yow kon jafe-jafe yi kan lañ koy jiiñ yàlla jinne yi lañ koy jiiñ wala seytaan yi du ñoom ñun nit la ñun nit ñi ñun la yàlla dénk àdduna def ñu ay ay xulafa def ñu ay xalifa ñun ñu représenté yàlla ci kaw suuf kon lu fi xew ci mbaax ñun la lu fi xew ci mbon ñun la amul lenn lu fi xew ci mbaax loo xam ne du doomi aadama yi ñoo ko jiite mais itam amul lenn lu fi xew ci lu bon loo xam ne du doome aadama yi ñoo ko jiite duñ ko jiiñ kenn du yàlla du kenn ñun ñoo ko teg suñu bopp problème bu nit am ci gàttal nit a ko teg boppam boo tuubalee yàlla yonentu moo ko wax soo tuubalee yàlla yàlla jëlee la ci problème bu dee feebar la am nga bàkkaar boo def boo xamante ni yaa tax yàlla teg la bàkkaar boobu yonentu moo ko wax de bu dee ñàkk la xulte neti nuux yi lan leen wax yàlla foofu foofu xam naa la ñuy tëjee dégg nga yàlla noox dafa dund juróom-ñeenti téeméeri at ak juróom fukk mooy junne at bu manqué juróom fukk di woo nit ñi ci yàlla nit ñi demuñ di woo suba ngoon dégg nga nit ñi demuñ lenn ci ay nit yu ndaw ñoo dem yàlla ne yow lan ngay wax lan ngay wax sa ñooñ ba ñu nu wax ne leen qul tastaxfiru rabbakum dama la ñuy wax ne leen jéggulu seen borom innahu kaana xafaaran yàlla ku ko jéggulu mu jéggal la ndax jéggal akul su ngeen ko defee wa yursilu sama aleykum midraaran yàlla dana wàcce taw bi parce que yàlla bu la meree day téye taw bi te nag wërsëg yëpp mu ngi ci taw bi bu taw bi wàccul rek ya adduna bi day taxaw mbay moo téewal loolu beneen waxtaan la xam naa daneen si ñëwaat beneen yoon parce que mbay moo téye économie adduna bi saa yoo xamante ne mbay amatul rek économie àdduna bi day taxaw ndax àdduna bi yàlla nga ko samp ci mbay ci wàllu économie te mbay moom mu ngi jugee ci ndox moo xam ne ci asamaan la loolu beneen affaire la danañ ci dellusiwaat beneen émission dégg nga léegi nag noox ne leen wayu bu ngeen jégguloo yàlla wayu sulu sama aleykum midraaran yàlla dana wàccee taw bi wayum dit kum bi am waalin su wàccee taw alal ñëw mooy li ma la wax rek su wàccee taw alal ñëw wayum dit kum bi am waalin wa baniin te bu wàccee alal taw ñëw doom yi ñëw waye wayajalakum jannatin wayajalakum anaara dana leen defal ay tool defal leen ay sewnde yu roose tool yi ba ba tool bi baax ba ngeen mën ci jëriñu kon lu xew ci nit ci bàkkaar la moo tax maa ngi joxe dog boo xam ne ku koy def incha allahu taala da nga jugee ci problème boo mënti am foo mënti toll téel sa kurus di wax astaghfirullah ci lu bilaa adadin dégg nga amul benn buntu wërsëg wala benn wirde bu mën a bu gën a rëy dégg nga ngay wax astaxfirullah amut soo bëggee jógee ci problème demal wax astaxfirullah soo feebaree bëgg a wér waxal astaxfirullah soo ñàkkee bëgg am waxal astaxfirullah lu la mënti dal ci àdduna joxe naa dog boobu te ku ko gëm te bëgg koo jël jox naa la ci ndigal del wax astaxfirullah saa yoo nekkee ci guddi wala bëccëg soo yëttee sa kurus def ci lu baree baree bare soo ko defee yàlla dina la jënd ci problème boo mënti am maa ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di la gërëm di la sant ci interview bi ñu def maak yow di ñaal sa site bi yàlla yëkkati ko yow Ibrahim Euh, yëkkati la bu baax a baax yàlla sàmm la dégg nga ba teg ko ci mbooleem fi mu teg ci média yëpp yàlla teg fi sa site boobu euh, di nuyu ñëpp di ziyaaram wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.